laa koy def. lu leer laa la wax. mais si la indaale la doyul si indaale la doyul. si la liggéeyul sax pour Modou Lo. liggéeyul pour Modou Lo. parce que sëñ Bamba. toujours ba ñu xamante ni. non. ci yàlla yi borom dëkk bi waxoon nañ leen ko borom dëkk bi ngeen xam ni ñëw na borom dëkk bi ngeen xam ni ñëw na daa doon bëre ay petit combat lañ doon bëre grand combat la borom dëkk bi parce que seen baax jàmm ba ñëpp a kontaan ci ne ñëpp a génn àdduna waaw non Sénégal bañ juddoo ba léegi roi des arènes lañ xam naan ba léegi roi des xam benn roi des arènes lañ xam te sa feewul gars yi roi des arènes lañ xam bañ nekk ci mbër boo mbër boo a dem a doon roi des xam waaw borom dëkk bi nga xam ne aéroport Diass ba jàmm gën embouteillage bi loolu suñu borom moo ko defal Siteu ñu bàyyi laa nga nuyoo ñu lay seetaan. waaw di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di nuyu àdduna di nuyu suma mbokk di nuyu jàmm gën bloc 16 bi di nuyu suma yaay di nuyu suma fami di nuyu jàmm gën bi nag bloc 16 bi lu ko tralee Poste Thiaroye ba Fass Mbao Sam Sam. di sant wa Lamsar Bousso yi ñep ma leen di bëggee di bëggee waa Tëngéej sama sama sama sama sama siège sama ville ma leen di bëggee bu baax waaw di wax ne gis naa lépp di nuyu suma xarit Babacar Xuma beneen bi may wax di la foole séeréer bi nuwanaa le aw séeréer mi gin mam simnam kaxatuna kina le jongwaar bo ñojor bu fayako fop mi simna den lande nga gram bi nun nun onda laaɗen ga combat fannike combat nduna ref refe combat combat a ref nuno njugnu cuwana nuun leyanduga nuno sumnannoa i gidma jongwara fop waaw du nuyu ñëpp du nuyu journaliste yéen ñi nga xam ne dañu bàyyi seen lépp ah boobu léegi ñu ànd liggéey bi kon bu dul dara ñu taxaw nii waxtaan bu dee temps bu ndaw ñu def ko waaw. si te mbooloo mi la topp dippe ay rapport mhm. ba jàmm gën say am di jàmm say xarit say nit ñëpp na la. rek ñooñu. waaw di leen wax ne loolu dafa yàgg loolu di dibi mbapat la yee eh, bañ ma xamee moom nag mën naa la ne 2010 ba léegi maa ngi ak ñoom si arène bi kon yàgg na trop waaw di wax ne du man du man yàlla la yàlla waaw loolu yàlla yàlla moo ko def si doomu aadama dañ ma jox luñ dañ maa jox lu bari rek ma delloo leen luñ moom muy wormaal waaw ku ci nekk lu moom cër bi nga jox ko waaw yëg-yëg bi amul leneen waaw loolu la rek d'accord ñu gis Siteu euh, bi mu demee di liggéey maa ngi liggéey jar tabax mais dañu gis Siteu indaale masse boo xam ne euh, lan moo waral loolu mbër bi ngay am moo toll noonu wala combat royal wala da nga préparé waaw xam nga xale laa rek damay liggéey rek xam nga yéen a gis masse mais man dama demul liggéeyi liggéey ba pare làqatu di liggéey lu métti waaw man ku ma gis xam ne dama doon liggéey waaw li mag si di wax naan maa ngi liggéey maa liggéey jarul wax baal ba nit ñi gis la. baal leen ba mu sumbeeku ngeen xam ne li may uti dama ko bëgg. waaw nga nekk Amérique am loo waxoon Modou Lo ne ko li nga yor dama koy jël boo ci tege sa loxo damay dagg jaasi laa indaale léegi yaa ngi ci du Modou Lo kese de li ma moom laa la wax ku ci teg loxo ma dagg sa moom gis-gis la dégg-dégg gis la dégg-dégg la Adama Gueye mm-hmm. eh, li ma moom laa wax dama la ne ku ci jege ma dagg sa loxo yéen da ngeen jël wax ji laaxaw Morlo rek ak ñu dul Morlo ñiy bañ. Ah. mu mel ni Siteu dafa am lu mu indaale parce que Siteu dafa nekk Amérique déclaré ne maa ngi ñëw te bu ma ñëwee li moo waxoon laay waxal loolu la dëggalaat. dama la ne lamb man maa moom lamb lamb. lamb di déglu lamb lamb maa moom lamb lamb lu mu laaj maa koy def man maay dundal lamb dégg nga lamb aar la waaw te saa yu ma ñëwee nag benn bu ci nekk yeewu. te eggaguñu novembre des na ay ñeenti weer ngeen di wax mel ni suba la eggaguñu de. ah <laughs> li ma moom laa wax dama la ne ku ci jege ma dagg sa loxo yéen da ngeen jël wax ji laax a mórloo rek ak ñu dul mórloo ñiy bañ. mu mel ni dafa am lu mu indaale parce que Siteu dafa nekk Amérique déclaré ne maa ngi ñëw te bu ma ñëwee li ma waxoon laay waxal loolu la dëgg laa. dama la ne lamb man maa moom lamb lamb. lamb bu doon déglu lamb lamb. maa moom làmb lamb lu mu laaj maa koy def man maay dundal làmb dégg nga làmb aar la waaw te saa yu ma ñëwee nag benn bu ci nekk yeewu te eggaguñu novembre des na ay ñeenti weer ngeen di wax mel ni suba la eggaguñu de. des na dañuy soog a tàmbali. ndax xalaat nga si te delluwaat Amérique. su ma jegee fii nii maa ngi si tarkindaay ñu wax ma fu ñu ma bëgg a dugal ma dugg foofu man volant bi rek laay déglu. lépp kos na gaaw na gaaw na eh. waaw xam nga làmb dañ leen doon jiiñ tuuma rek mm. mais fii la war a setee parce que Modou champion la Siteu champion la te moodu li mu def nii di bëreeg man lii mooy yéene mm-hmm. kon man waruma wone lu dul yar ak teggin te man moom laay séntu te ci lay dox ci lay deug sama tang te ku may àndal ci lol lay wo bëgg si jamu, mais dama la ne lamb man damay lamb lu lamb di laaj do lay def deug nga man non la mel man suma ma nga xamné ne ñëw na yaay deg, mais manam ñi wër nak di wax di wax manam di wax rek di yaq rek ñu nekk ñoy yaq kat ñu ay defarkat lañ ñun budul lamb nit duñu dégg budul lamb nit duñu gis ñu nay mbeur lañ te bu ñuy bëri ji képp ku ñuy seen ku ñuy topp bu dee supporter dañ la ne solal solal lu rafet sangul ba set sol lu rafet ñëw toog kuy mbër dañ la ne lépp lu mu laaj ñëwal bu dee abu ñaase fi mu ko war a joxoñ mu dem defal ma ko la ma ko koy wax mu dem def ko bu dee site bay digg géew ba dama koy lijjanti mais alors que gis nga ñuy wax lamb mënul yem ci benn loxo lamb fukki fukki loxo ak ñaar téegu mooy promoteur bi bu ñëwee kii ñëw kële ñëw mu daal di neex mais képp ku yaakaar ne lang gi sa lang la yaa ngi nax sa bopp fii laa yem nag la sept di jox rendez-vous euh, waaw waaw waaw waaw dama la ne roi des laa la wax mbaxane bi man bëri may wax nii di may tëggaleen bëri man duma ci kenn mas ngaa dégg Siteu ku judd rek ñu ne la Siteu turandoo rek nga ci dégg mm-hmm. mos nga ko dégg waaw maa ngi nii nag waaw mm-hmm. lu sama yoon lan mooy sama yoon si li may wax ba beneen yoon la set si ta wax na wax